bu ku ne xëree rek. su fekkee ne mënoo ko déglu di waxtaan rek. day ko bu ku ne xëree rek bu ku ne xëree. tant que tu tu peux pas l'écouter quand tu dors. c'est pas de la musique. non non non elle est universelle. my name is Mike Dada, uh, President All African Music Awards, African Union Commission, live in Senegal. Join us, all the superstars, with Wally and all the superstars uh, from Africa around the world in January 12 to uh, at Grand to celebrate. Africa. Nagadev, l'Afrique arrive. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Africa asalaamaaleykum adduna salut tout le monde Wally Barago Seck mi ngi leen di nuyu di leen présenté ki nga xamante ni mooy PDG Afrima donc euh, Afrima nag soo ko déggee rek ëwër sa xel bi da ciy dem Afrima nag adduna yëpp ñoo ko moom Afrique yëpp ñoo ko moom ñu defoon ñu privilège ñëw Sénégal kon nag Sénégal il faut ñun ñëpp lii privilège la lii contentement la c'est un pays de teranga nañ leen accueillir wax leen ni lii ñuy defal neex nañu lool samay jeune frère dañ ci bokk te bu soobee yàlla dinañ jël ndam li Wally Balago Seck mi ngi ànd ak ñoom di leen bunge ba nga xamante ni waa Sénégal dinañ ci saf sap sap sap sap yow ma brother. thank you so much for people. yeah about the people of Senegal. to 84 countries around the world, from the beautiful city of Dakar, from the people of Teranga in Senegal, where you enjoy world-class hospitality of good nature of our people in Senegal. Afrima is going to be live in Senegal on January 12 to 15, 2023. Yes, and you know what? Wali, B, Sek, Balagu, <laughs> correct? will be there live to show to the world what is Mbala music. and how the young generation around the world should follow that beautiful sound, original sound coming out from Senegal. This the Prince of Mbala. Wally Bisek will be there live with all the other superstars. Welcome the other superstars across Africa around the world to the beautiful uh, country of Teranga of Senegal, January Like I always say, see you January, Wally. See you January. Thank you so much. Wally Balago Seck mi ngi supporté artistes sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi ci affrontement bi gars yi dem leen ngeen voté suñu artistes yi dem leen ngeen voté leen dama bëgg ñu jël ndam yépp Sénégal lépp fi lay des. <laughs> c'est bon well done. thank you so much. I'm gonna celebrate Africa, celebrate our music to the world. thank you so much. merci beaucoup. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. Well done, guys. Well done. engineer.